maa ngi ko bind naa ko. gars yi ñoo def remarque bu ne leen xalaat ñu tegee ñaar loxo rek mi ngi waay xam ne du seen. attaque tey silence tey silence bi laa bëgg a maye quoi. ba mën a bokk moom bu wéngaloo rek. tey tey silence bi laa bëgg a maye quoi. jombe lay wax. léegi Biray moom bu sëggee nag diplomate moom lu muy wax yëpp mën na wax lu muy wax yëpp. mais avec diplomatie. avec diplomatie. dafa dal lay dóoree sax ay diplo avec diplomatie. dafa dafa dal rek dafa dal rek loolu mooy kii nag. Euh, salaamun xawlan min rabbil alamin voilà nuyu nañu leen jaajëfal leen <laughs> waxtu bi bu jotee ah danañ ànd ak yéen jox leen li yéene yi xëy euh, fësal ñoo ko <laughs> waxandoo ah yéene kaay yëpp nag euh, sagar bu nga say xeeñ euh, waaye nag dañu koy door ak yéene kaay groupe des médias di tribune yéene kaay dafa ñëw ci procureur ma nga xam ne démb da doon am a ak janox taskatu xibaar yi Mamadou Fofana wax na ko nee ni mu doon waxee daal dafa mel ni benn débutant bi bu doon wax wala nag dafa mel ni li li mu doon wax Euh, euh, dafa am àndoon ak bëñ bi metti euh, xaw naa diisoon lool ci moom nag waaye nag gis nañu ni moom procureur ci boppam dafa wax ne teg nañu loxo ki ñuy wax Ousmane Kabiline jaata nee na nag rebelle la rebelle la bu nga xam ne teg nañu ko loxo am na ñeneen ñu nga xam ne nii fu mu nekk dañoo rëcc. ci manifestation bi ñu woote woon euh, bu mujj bi bu waa Yewwi Askan Wi nee na nag dafa amoon ay rëbëri yi carax jóge kenn xamul fu ñu jóge daal di ñëw euh, juux si fii ci diwaanu Ndakaaru kan moo leen invité lu mu ci man ci doon de yéenekaay bi samp na aw laaj kan la procureur di joxoñ mhm. kan moo fi invité rebelle yi rebelle lan moo leen taxoon a jóg lan lañ namoon def ani kan moo leen jiite ba ñu war a mën a ñëw fii procureur nee na euh, yéenekaay bi nee na procureur am na ku mu joxoñ baaraam baaraam bi kan la ko joxoñ yéen kaay yeneen yi dañ si dikk en tout cas Ousmane Kabiline Diatta mi de moom jot nañu ko teg loxo ña sa des nag daw nañu ànd fu ñu laaxatu fii ci diwaan Ndakaaru wala ci euh, réew mi te nag procureur li mu ci dolli xam le moo di képp ku nga xam ne taxee nga si moo xam nga invité leen nga dalal leen wala nga jox leen ndox ñu naan wala euh, euh, nga jox leen ñu añ lu mu ci manti doon biyee boo nga xam ne procureur bu la tegee loxo di ko réccu du samay kàddu euh, procureur moo ko xam ne démb bi mu doon amal janoo taskatu xibaar yi manifestation bi yeewu askan wi xam ngeen ne nag ëllëg lay doon ci àjjuma ji dégg defe naa mooy le 17 ans ah. manifestation bi ëllëg préfet bu Dakar daf ko kon nag li ñëpp doon njort am na nee nañ manifestation consommation bi dañu ko interdire kon nag sagar mu ngay xeeñ fii ci diwaanu Ndakaaru le danger qui guette le Sénégal yéene kaay bi moom moo ko wax ndax nee ñu yëngu-yëngal njortees nañu ne kon faw mu am violation article 61 bu code électoral bi nga xam ne moom la préfet euh, teg ci table ji ngir mën a bañ euh, manifestation bu Yewwi Askan Wi euh, nee nañu nag buñ sukkandikoo ci Zahra Iyane caam nee na acteur politique yi faw nag ñu woote ak dal nañu dépassé yenn discours yi ndax nag réew mi tollootul fu ñuy euh, defanteex dóoranteex saagante ñoo war a mag loolu ñoom responsable politique yi waa gëm sa bopp nee na euh, mi ngay dànqaafu euh, parti au pouvoir waa benn Bokk Yaakaar ñu ngi leen di xamal ne du yéene ne ñun du ñu bokk ci législative yi bien boo ngeen xam ne ne du sedd ci yéen ndax doon na gën a sedd sax ngeen bàyyi ñu bokk ndax bu boobaa suñu bopp rek la ñuy tal mais comme bokkuñu ñu nag dinañ mel ni bëñ buy metti seen gémmañ fenn du sedd foo leen tourné dinañ jàkkaarloo ak yéen dañuy battre campagne ba mu neex contre Macky Sall waa euh, euh, gëm sa bopp loolu la ñu woote Dabou Pouy moom législative deux moom nee na li ci gënoon te euh, politiciens yi bari di ko sàkku moo di ñu jële fi li nga xam ne moom mooy parrainage bi et puis élection yi sax nañu ko reporté nañu ko dàq ba beneen donc parrainage bi nañu ko fi jëlee FIARA 2022 yéen kaay bi ñëw na si El Hadj le député du peuple nee nañu am na benn éleveur boo xam ne nii dafa bañ a jaay dañu ko fay un million cinq cent ci peeru pitax mu na du ko jaay mhm. un million cinq cent si peeru pitax mhm. El Hadj nag bul ma un euh, euh, waay ah man ku ma jox un million cinq cent man ci peeru pitax mën ne la jëlal xëy na nag xaw ma pitax moo tax xaw ma boobu dafa boobu dafa yomb moo tax. boobu dafa yomb. comme ki ki ki ñu fay 500 millions si am xar mu bay eh, dafa yomb. man tey ma 2 millions sax ne la kaay jël yaa ka fi bàyyi. boobu na nga nekkul éleveur rek. leneen lu ci gën a garaaw. Mhm. Ela dina ko dina ko dëggal. mu di li li ngay nekk mala yooyu lu ci ëpp. sympathie bi. après day dem ngeen di bëggante. affection mi ngi noonu la. da ngeen di bëggante doo ci bëgg dara. bilaa xar sax di nga ko yar doo ko bëgg a rey. da préféré jaay ko. maa noonu. bilaay wallaay non sax beneen beneen beneen beneen système la quoi. ci wàllu njëg gi am ci élevage bi. proposer la benn peeru ganaar boo xam ne da ciy laaj trois cent mille wala euh, un million. loolu laleen la faaw ne ci bi pour comprendre. Hmm. am na ci ay pitax yu alde nag. <laughs> pitax yoo xam ne dañoo alde. pitax naturellement moom. pitax non noonu la mel. <laughs> direct news. <laughs> dégg nga procureur dafa ñëw nag dafa mel ni euh, yéen kaay bu euh, euh, D-Média dafa wax kan la procureur di joxoñ direct news ne ko jarul wiiri wiiri est-ce que du Ousmane Sonko lay joxoñ nee ubbi na nag information judiciaire moom procureur te képp nga xam ne da nga taxe ci mbir mi nga si doon def mbirum complot jàppal ne kon du ñu bàyyi mu sedd rebel bii di Ousmane Kabiline Diatta moom noonu la ko tuddee mi ngi nekk sous mandat de dépôt kon nag téye nañu ko pour le moment opération bi nag amal nañu ko ngir mën a teg loxo yeneen rebelle yi nga xam ne ñoom ñoo daw Yewwi Askan Wi ne fu mu nekk nii nag Khalifa Sall nee na neex naxadi suba seen doxum ñaxtu dañu koy amal gisuñu lu koy teree am donc ñu gis ne it euh, wàllum risque incendie ci campus sociaux yi bi appelé na Maguette seen bu COUD sans euh, agent yi euh, bu COUD yóbbu na leen ci école du secours kon nag taxaw na leen ngir gën leen ñaax ñu mën a tàngat leen certainement ci lu ñu mën a mucc ci lakk yi ñuy faral di nemmeeku ci yenn bërëb yi laas quotidien dafa ñëw ci discours bu procureur tey daal procureur moom moo ayee dina mel ni bas de bu eh, ba mu ayee woon tey nag <laughs> moom moo ayee procureur fu mu nekk nii daal eh, nee na def na ay grave révélation teg na loxo benn rebelle bu nga xam ne nii eh, dafa ñëwoon ci manifestation yi nee na nag dikkaat na ci L'As Quotidien si nan la gendarme yi ak nag RG yi piste ki nga xam ne mooy Ousmane Kabili Diatta ak nag ñamu àndaloon di ay rebelle ba ñoom moom ñu jot ko teg loxo jàppale ne nee nañ jabet Euh, ku ko am euh, amul benn euh, risque nga faatu bu fekkee dañ la maanaam administré sérum glucose parce que ñu bëri dañuy wax ne da ngay dem hôpital rek xamuñu lu la jot ñu daal di lay sampal perfusion sérum glucose nga doxe fa ñàkk seen bakken ñoom nag ñu ngi jéem a weddi nee na ñu wax fa dëgg neex yàlla loolu taxul nga dee procureur nag bu si réew mi dikkaat na ah, ñoom weddi nañ ko de waaye day màtte du màtte bu ko jam balaa nga kay defal euh, perfusion xoolal xool ko rek wala nga defal ko test diabète ba pare moo gën a simple non lañu war a dafa am loo xam ne il faut ñu koy njëkkee mu di nit bu ñëwee feebar balaa dara xoolal ko ba xam am suukar wala am suukar comme te ñun amuñu habitude dem hôpital te dara jotuñu pourtant am na hôpital yu koy def loolu moom léegi moom dafa war a nekk loo xam ne lu ñu saxal la réew mi quotidien ab rebelle la ñu teg loxo fii ci Dakar Sonko nee na moom ab plainte dana ko dugal contre procureur bi ndax kàddu ya mu teg daf caa gis euh, boppam procureur bi nag andi na ay preuve am manifestation 17 bi dafay am loolu moom mooy kàddu Khalifa Sall yéenekaay bi moom xam naa turam daf ko réer Euh, kenn def ko ci manifestation 17 juin. <laughs> Euh, la Sud Quotidien ah Sud Quotidien la. moom boppam dafa dem bi. donc euh, le <laughs> nee na. donc Sud moom waaye yeew yi. décapité boo ngeen xam ne ah dañ dagg dañ ko décapité. dafa ñëw sax bopp. blanc quotidien dañ ko. Ah, moom mooy yaay. <laughs> préfet nee na mukk nag manifestation bi di fi amee waa yeewi askan wi nee nañ dafay amee xel xalaatul nag ñuy delloo seen manifestation boobee. loolu la ñu gis ci euh, euh, critique euh, jëm ci procureur ak nag révélation yi nga xam ne jot na ko def waaye wi Askan Wi oote nañu nee nañu nag résistance la ñu woote ci doxum ñaxtu bi Mouhamadou Moustapha Diagne ci l'évidence nee na nag faw ñu xam ne réew mi dafa amum jiit te moom la ñu tànn tekk ci kaw moom nag na mat njiit ga mu doon ngir euh, ñu mën a respecter suñuy institution fatwa bi wadd na euh, ci euh, ka nga xam ne si doyen des juges Ousmane Kabiline Diatta nee nañ rebelle la ñu ne nekkoon fii ci Dakar manifestation à la place de la nation le bi daf ko interdire waaye yeewi askan wi ne mukk du ca dal dañuy rek wàcc si askan wi yeewi leen ci loxoy président Macky Sall bés ni waa jii moom fu mu tëdd dee sax da ndax moom moom mi euh, waaj ji nu mu tudd waay euh, Njaay Daaf moom moo de nekk sa gabon lu ko neex mu jël teg ko ci der sunu gën gi mbindeef gii euh, sallallahu alayhi wa salaam Mohamed moom ci boppam nag sunu profet boobee waa ji nee na jéggalu na waaye terewul waa gabon ñu ngi koy waa ji dàq ca réew ma maatam ga mu bawoo ba ci papam nee nañ ko bu fi dikk moom fu mu nekk fu mu tëdd dee sax da koo tëj xamul fu muy teg tànkam fu mu nekk nii. gisagul dara gisagul dara yeewu askan 24 heures. yeewi nee nañu de wax fa dëgg neex yàlla kàdduy procureur wala gouverneur wala préfet bu tere loolu dégluñu ko Khalifa Sall nee nañu ëllëg ci vendredi moom bu neexee yàlla xanaa yàlla ne mukk du fi am de waaye nee nañ bu neexee yàlla ci mbedd ma la ñu jëm dañuy amal seen dox seen seen seen euh, euh, sitin toogaanu ñaxtu ba nga xam ne moom la ñu bëgg ama amal sa place de la nation wala place de l'obélisque euh, Khalifa Sall nee nañu nag jëm gouverneur bi ak conférence de presse bi ak procureur li mu wax yooyu yëpp wax fa dëgg neex yàlla loolu yëngalu leen waaye nag les femmes de l'opposition nee nañu ajjumay talaatay ndeer am na waaye ajjumay ndeer dana am nag ñoom ay Aïda Mbodj ndax nee nañu suba ñoom ci boppam jigéen ñi noo nar a porter combat bi xam nga ne xalifa Sall bi ñu ko téyee woon ci ci ci kaso bi bi fi coow li amee jigéen ñi taxawu Dakar yi dañ dañuy woote marche nu jigéen yaa ngi koy fàttaliku. marche dumb ba fu ñu mujjee marche dumb ba. ne dañuy def ñëw ba ci mbedd mi rek def dungu ndax ñu bàyyi ndax dañuy um président Macky Sall ndax <laughs> waa jooju nekk ndaw soosu nekk sax France suñu tudd xaw ma nabu la xaw ma. yow moom fàtte woon naa. max dungu ba ndaw soosu def benn laaj ba leen fexe ba nag na maase. na yaram bi yëpp maase. nga am na ñoo xam ne mu ñu si mékkoo ñooy raw kàkkatar couleur bu ne def. est-ce que du ñooy raw kàkkatar ndaw su ne leen na maase diw leen tëpp maase boo leen bëggee def dungu du mbugal. subhanallah. bilaay wallaay loolu bu fi amee dina umu de réew mi sax mooy umu. l'exclusif ñëw ci li nga xam ne mooy waaye benn bokk yaakaar ndekete yow 33 ministres la ñu am ak 4 secrétaires d'État. sept donc la ñu gis kon ñoom la ñu investir ci liste yi bokk na ci Abdoulaye Daouda Diallo Abdoulaye Seydou Sow Aminata Assome Diatta Néné Fatoumata Tall Mansour Faye Alioune Ndoye ñooñu ñoo war a relever défi bi euh, loolu la ñu euh, nemmeeku ñu euh, jàll ci Vox Populi yaakaar naa ah, ñoo ñoo ngi xabaabal nag. Kabiline <laughs> teg nañu ko loxo procureur dafa mel ni dafa ciblé ak yenn ñu nga xam ne ñoom la ñu teganteel dil ñoom rebelle yi waa Yewwi Askan Wi lu mu ci manti doon. ñoom waa Yewwi Askan Wi amal nañ seen janox taskatu xibaar yi nee nañu ñoom ci boppam ñu wax leen ndax ñu ñàkk leen wax seen doxum ñaxtu dañu koy amal suba jigéen ñi nee nañ ajjumay ndeer la ñu wootee jamono joojee nag xam naa El dina ci ñëw ca Sébi xotaan si biir tës euh, euh, ñeenti at la la am xale bi. Mm-hmm. sa Sébi xotaan dafa réeroon ay mbokkam waaye nañu ko gisee démb ci benn batiment ñu faat ko ci anam gu jéggi dayoo. Mm. anam gu ñaaw lañu ñu ko faatee. mu nekk benn crime bu nga xam ne mu ngi si biir jotaayu xibaar yi xam naa dinañ si ñëw ci biir tës. El Hadj incha allah incha allah kii nga nag jël nga sa temps vraiment 8 h moo jot. Hadj ah, Mansour nañ dem. Mamadou Fofana Bassirou ci biir xutaan la xale ba mi ngi tudd Adama Mbaye ñu gën ko xam ci Adama Mbaye dañ ko fekk mu faatu juróomi at la amoon nekk ci bâtiment bu noppiwul dem na ba ab néewam commencé yàqu dinañ ci dellu siwaat Ousmane Kabili Diatta procureur nee na ab rebelle la bu nekk fii ci Ndakaaru teg na ko loxo ngir topp ko ci ay tuuma yoo xam ni ku na ma def fi pexe xëy na ci lu méngoowul ak ngi ci dundinu askan wi préfet département bu Dakar fekk si na njiitam gouverneur nee na rassemblement wu waa coalition benn Bokk Yaakaar du fi amee su sukkandiku ci article L61 bu code électoral ba gars yi jàpp ne njuumte la ndax loolu média bi dong la concerné te googu la ay ci général lay bëgg ak bañ ñu def manifestation faw xëy na bisub test la kon ci diggante pouvoir ak opposition suba ak jàmm waaye li ci jaaxal nit ñi mooy ku fañu fayu ba moom ci bopp askan wa dong lay sewet sport ñu ànd ci ak bàyyi ma ante mbuub yéen kaay yi lañ koy ndax kepp ak Mantoulaye Thioub Ndoye faram